jàppandul lu tax su ma yeboo di dañoo bind ci site internet yi ñu def benn ñu dagg benn partie bind Thione Seck les hommes me donnent de l'argent je le fi wax yëpp la seule partie qu'ils mooy loo xam ne mm-hmm. di pour débattre. ils sont comme ça. c'est que Thione Seck nee na quand les hommes me donnent l'argent je prends. waaw une petite phrase une petite léegi ku dugal ci affaire bi du xam li ñuy wax. dëgg la dañuy joué ñu dañuy saaga ne waaw moom day dafa góor jigéen non alors c'est pas c'est pas ça. tous faire le même travail c'est-à-dire ngeen liggéey ci professionnalisme ak respect ak loo xam ne day jëmee nit ñi kanam.